groupe de la TMS TV et Thierno Moulé Sow le khalife général des djinns souhaite un saint de carême à toute la communauté musulmane. jërëjëf mbokku téléspectateur bi tey nag euh, di jour bu mag di jour boo xam ne ni jour bu mémorable la ndax mooy premier jour koor tey euh, ñu ubbee ci teraanga. Euh, donc gis ngeen cérémonie bi fi am léegi mais mu am beneen cérémonie ndax sëriñ bi li muy wax rek ne taalibe moom bul seet la sëriñ bi am. bul seet dara ci sëriñ bi waaye seetal yow la ngay defal ci sëriñ bi te sëriñ bi du xeebal kenn lenn moo tax tey euh, kii ngeen gis di taalibe sëriñ bi di soxna Fat Diop mu ñëw nag moom tam ci premier jour koor gi vraiment am loo xam ne indiloon na ko sëriñam vraiment moom tamit pour barkeelu ci lii nga xam ne moom mooy ndogu yi soxna si ñu la kàddu. bisimilah. salaamaaleykum. maa ngi leen nuyu du waaye maa ngi leen nuyu. di la ziar mu bëri. di nuyu Thierno lu bëree bëri di ko jox yéegu waayam di nuyu madame Sow mi toog di nuyu Alseeni ak cameraman maa ngi lay nuyu ñëpp macha allah waaw di yeesalwaat sama njébbal rek ci sëriñ bi waaw man sama xol dafa sedd sax mun ma wax tey moom mun maa wax dara kontaan rek laa def macha allah di ñaanal sëriñ bi wér ak wérle ko at yu bëree bëree bëree bëri xéewal li gën a saawaan baawaan ñu gën a mën di di gën a indi xéewal yi di ko ñaan te mu yokk ñaani bu baax rek oh. waaw. te ni nga ko ko li te xeeb ko bu baax sax dëgg yàlla. <laughs> waaw ki ma ko defaral nag. waaw mu ngi tudd Ngone Diop. Mm-hmm. Diop la sant. Mm-hmm. ma ne ko Thierno Moulay laay yóbbul euh, kii bi. Mm-hmm. mu ngi koy defaree soixante mille boole bi. mais mu ne ma damay jox danga ma jox cinquante mille. dix mille yi maa ko jox maa ko ziare Thierno Moulay. mu ne boo demee da nga tudd sama tur nag wante damaa ragal la ñëw. dëgg la ñoo doon ànd mun na waa. Mhm. ab lébu la mun damaa ragal ñëw. dëgg la waaw waaw ma ne man xam naa su may dugg rek ngi daanu. waaye waxal ma ko Thierno ma ne ko dina ko dégg bu neexee yàlla. mën a jóg yóbbante moom àq la. dëgg la kon nag yóbbante bi àgg na. ndax euh, nee na euh, soxna Fatou Diop nee na ki ko defal di mooy Ngone. ngoone Diop la tudd moom tamit vraiment nee na soixante mille fukki junni ak ñaar la ko defaree bool bu mel nii waaye def na ko indi fukki junni waaye ñaari junni yi nag man maa ko barkeeloo ziare ko sëriñ bi muy sama participation alors donc def naa ne sëriñ bi ah yow day yu mel ni moom daf lay bëggal parce que nag euh, maanaam du sax euh, lit la nekk ci biir bool bi mais façon bañ la ko joxee ak nañ la ko joxee def naa ne mooy tax ngay kontaan ci sa ay taalibe te ku dolli cere dolli ñeex sëriñ bi kàddu gaangu waaw jërëjëf doyen ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di am kontaan ak mbégte lool di nuyu suñu taalibe bi nga xamante ne moom ku baax la ndeysaan barki Dembo Ndiaye la ñëw jébbalu fi gis nañ tey mu ñëw nekk ci liggéey bi vraiment première weeru koor mu indi bool bu mag bi ni nga xamante ne beñe yi dafa bari de lii macha allah lii moom dafa bari trop moom. macha allah kon nag ñoo ñoo ngi koy sant di ko gërëm ak ki mu jox aussi ngoone ngoone naka ngoone Diop aussi macha allah moom it mu dool dolli ci ah, kon nag sant nañ leen ñoom gërëm nañ leen bu baax a baax vraiment yàlla yàlla yokk leen ndax lii moom vraiment euh, macha allah lii mooy suukaru koor bi macha allah def addiyee ñëw indi ba nga ne beñe bi moom moom dinañ ko lekk fii lu yàgg sax kon nag kontaan nañ bu baax a baax yàlla yàlla yokk sa xéwal yàlla yàlla aar sàmm la macha allah mbir yi gën a mbir gën a yokk te incha allah dana yokk waaw jërëjëf. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax macha allah di waa waa waa yaraax ñëpp macha allah jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla barkeel kontaan de. kon nag euh, mbokku téléspectateurs yi c'est sur ces notes que prend fin cette en tout cas de remise hein, de de à l'endroit du marabout par cette dame que vous voyez ici qui n'est autre qu'une talibé talibé boo xam ne nii bu dëggu la vraiment bëgg sëriñ bi tey moom moo ñëwoon indil li waaw bëgg a dégg nga mu ngi koy réitéré waat ah la répétition elle est pédagogique mu ngi koy gën a dëggal bëgg sëriñ bi gëm ko wóolu ko ah, jébbal ko boppam kon nag euh, loolu lañ leen indiloon vraiment ci deuxième geste bi incha allahu rabi kon nag ñu leen di jox rendez-vous ci yeneen reportage sur la TMS TV après le premier jour de Ramadan tey vraiment mu nekk une journée très riche ndogu bu bakkane tey vraiment euh, ñi ñëwoon ñëpp tey ndogu nañ wax dëgg yàlla waaye nag sëriñ bi sànq nee na <laughs> mi dafa jeex tellement que ni ñi dañoo takku xam nga nag lu dul jeex moom kenn amu ko ndax yàlla moom mooy séddale te yàlla sax léeg mu jox ñi du jox ñële waaye nag li leer ba leer daal mooy bañ na ko tey 200 morceaux de pain yi ñu defaroon 400 la sax boo koy xool parce que dañ ko diviser muy 400 personnes tey ndogu nañ tey grâce à la générosité du marabout nee na bu subaa tamit ko dolli rek. waaw nee na <laughs> dañuy dañuy yokk nag kon nag finalement le point de convergence de tous les musulmans c'est ici devant la devanture du khalife général El Hadj Thierno Moulay Sow rendez-vous à demain. groupe de la TMS TV et Thierno Moulé Sow le khalife général des djinns souhaite un saint temps de carême à toute la communauté musulmane